Assalamualaikum mbooloo mi Mangilin ngi len di nuyu yen ñi fi tew yeb kenn ku nek ci turam ak ci santam. ngeen deglu deglu di len ballo ak ci bis bi ci waxtu yi ñu joge di weeru koor yalla na nangu ñaan yeb amna mbekté tew ci bis bi.

koo xam ni daanaka moom a tax a toog Thiès muy kilifa réew mi kenn ku ne xam na ni ñun ci administration lañ nekk doxuñu ci politique waaye fii nu toog ndigal moo fi téye jàppale leen waa Thiès def leen seen liggéey kem seen kàttan lépp loo xam ni mën ngeen ko ci population bi ci lu baax def leen ko boobu ndigal. La jële ci sama kilifa di Amadou Ba nekk directeur ministre de l'économie et des finances et du plan ba may affecté fi Thiès bobu ndigal la ma jox kon bobu ndigal la fi togué mom ci bopam nak kenn ku ne xam na ni président de la république mooy kilifaam ki ilif sa kilifa nak moy sa kilifa kon sumay may doxee ndigalu Amadou Ba mel na ndigalu président la fi doxe di fi doxe it ndigalu gouverneur de la région

ku yàgg di def lu baax bis bi defe naa mooy juróom-ñeenti yoon ñu koy organiser te at bu jot moom mooy animer conférence bi kon am naa mbégte ñëw teew fekk ko fii di nuyu itam sama xarit sama nijaay di njaayloo njaay di mag mu baax mag mu yor puso du seetaan luy xotteeku kon ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla may fan wu gudd conférence bi nag bis bi ngeen ko jàpp dafa doon bis bu am solo di 15 août ñëpp dañu jàpp ni 15 août feetu diine catholique la ah, sama àll gudul guddul waaye catholique ak l'islam sorewuñu parce que bokk na ci li ma neex ci l'islam mu tax ma dugg ci dañoo nangu yonente Isa ci man ma juddoo ci catholique yaroo ci yàlla baa xam ne nag ma nekk mag tuub ci l'islam tuub ci Serigne Mansour mu dupe ma sëñ babakar mi papa ba bu muy wuy aduna tak tàggoo ju mak mom yalla yàlla baaxe ma it ma tab ci famille fallu Abdou Fata don sama xarit di sama kilifa di sama wolere yoyu ñaari car nak man ci la jafal lolo tax ma am toogaay bi ma am Thiès di gor gor lu ci lu bax parce lolo lañ ma sante kon bis bi bis la hamni xamni conférence jaaduna ci parce que day tax ñu téye xalé yi du dem te la ñu dañ koy def ci tagat xalé yi di leen xitral ci lu ci ci ku koy def mi ngay parce que nous liggéeyama waye loxom ak tànkam nous fu ne ñun ñi ko ñu war di yegsi ci yeen di leen euh, gunge di leen jappalé ci yu melni parce que xalé yi toll nañ nous xamni ni jamono bi melna

conférence bi xam naa dina ko déglu ci cassette yi mais comme dana war a dellu dakaar ngeen déglu ñu rek yooyu kàddu laa bëggoon a wax li ngeen wax ci man yëpp da di loo xam ni du ci man waaye dañ ma sas sant ma ma def ko ah taalibi nag ci ndigal lay wéy bu ma dëgg la liggéey moom ma indi Thiès maa ngi fiy jéem li ma man ci wàllu liggéey waaye waru ma faa yem parce que damaa jaxasoog waa Thiès kon lépp lu ma man pour jàppale ko Thiès dama ci war a taxaw loolu moo waral samay tànk fii Et c'est mon ami et frère Oussas Ibrahima Faye qui anime la conférence chaque année cette année c'est vrai il a porté son choix sur ma modeste personne pour parrainer la conférence euh, j'ai accepté euh, volontiers cette proposition pour deux raisons principales la première raison c'est le thème de la conférence et la date également. La conférence chaque année est organisée à la soirée du 15 août. Tout le monde sait que le 15 août, c'est une soirée où les enfants ont l'habitude de sortir, aller danser, s'amuser. Alors si mon ami Sal a l'initiative d'inviter la jeunesse de Thiès pour leur faire une conférence, pour les éduquer dans les vertus de l'islam, je pense qu'il s'agit là d'une initiative qu'il faut saluer. C'est l'une des raisons fondamentales qui motive ma présence ici. La deuxième raison, c'est que mon ami Sal également, euh, dans son quartier, dans sa ville, Thiès, euh, s'active dans la politique pour appuyer le président de la République. C'est vrai que je ne suis pas un homme politique de Thiès, mais je suis un chef de service à Thiès. Et entre autres missions, on me demande également d'être aux côtés des populations de les appuyer, de les aider. Et tout le monde sait que les initiatives qui sont prises, qui vont dans le sens de renforcer la qualité de l'éducation des enfants, c'est une bonne initiative. C'est la deuxième raison qui me pousse à venir appuyer ce genre de manifestation. Je vais ajouter une, troisième raison. C'est la présence de mon ami Ibrahim Faye, qui fait de bonnes conférences partout au Sénégal, et particulièrement ici à Thiès. Donc c'est un plaisir pour moi de venir assister à sa formation, parce qu'en fait je considère ses propos comme des propos formateurs. Euh, je vais me considérer comme un jeune qui va religieusement écouter sa conférence, parce qu'en fait, moi, euh, j'ai eu la chance de rejoindre l'islam lorsque je suis adulte. Je suis né dans la religion catholique et je profite de l'occasion pour remercier euh, les grands responsables de la religion catholique parce que c'est eux qui m'ont formé, les vertus qui sont en moi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est des vertus euh, que j'ai pu euh, prendre à l'occasion de cette éducation-là. Donc je les en remercie du fond du cœur. Mais Dieu m'a aidé et m'a poussé vers l'islam lorsque je suis devenu adulte. <coughs> Donc c'est une raison également qui me pousse à assister à chaque fois à ce genre de manifestation. Vous avez parlé dans vos propos euh, du thème qui s'adresse à la jeunesse. je sais que c'est un thème assez intéressant. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, va constituer les adultes de demain. C'est eux qui vont diriger le Sénégal de demain. Donc il est important qu'on insiste sur la qualité de leur éducation. Et le travail que fait Oustaz Faye, euh, à travers l'initiative de mon ami Sal, contribue à renforcer la qualité et les vertus qui sont au niveau des jeunes. Donc c'est un devoir pour moi quand même euh, d'appuyer une telle initiative et d'être aux côtés des Tchessois euh, dans le cadre de ces missions d'éducation et de formation de la jeunesse. Voilà donc les quelques propos que je voulais euh, dire euh, concernant votre question. un message à lancer envers l'État, peut-être pas envers l'État, mais envers les chefs religieux euh, de la trempe de Ibrahim Je les incite davantage à participer à l'effort d'éducation de l'État. Parce que tout le monde sait que l'islam a de bonnes vertus. L'islam a la qualité d'être à la fois une religion qui vous enseigne la pratique, mais également qui vous donne une bonne éducation. L'islam a un projet de société. Et ce projet-là, il faut le faire connaître. C'est un projet qui est plein de vertus. Si les jeunes s'inspirent de ces vertus-là, mais notre nation sera une nation de paix. Donc j'invite les chefs religieux, les érudits de l'islam, à renforcer euh, leur initiative dans le sens de contribuer davantage à la formation religieuse de la jeunesse. Merci. am sutura am taraanga bëgg loolu yàlla bëgg rasulillahi yërëm jirim yi yërëm baay yi yërëm ñi nekk ci hôpital yi di jëf ci jumaa yi am yërmande ju yaatu muy Babacar Pascal jonn teew na yàlla yàlla guddal sa fan ku ko wax yàlla nga siyaara ji rasulillahi ndax nit bu amee njariñ dañ koy ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan jumaa yi jàkka yi jirim yi baale yi ñëpp xam na ñoo ngi ñaan sa yéene ci réew mi yàlla ko yàlla mottali ànd bi nga ànd ak président Macky Sall yàllay faju ajo julli yëpp ci darajay rasulillahi nit na ku ko xeebal bisam su amee gàcce rek yaa ko teg nit ku ko xeebal jàngoroom su dee rek yaa ko rey ni nga dugg see boo dugg si woon ne asalaamaaleykum tourné ñibbi rek dama ne jaay laalo fa ñuy toggee cere te gëlëm kenn du ko sololi koket daa njool ba pare Babacar jazakumullahu ana xeran jaza yi dama ne góor gu baax goo gis muy dem nag ah jigéen ju baax moo topp ci gànnaawam di ko jàppale di siyaare nag soxna maam kan yàlla yàlla guddal fan wi yokk sa wér yokk sa taraanga ci darajey muhammadu rasulullahi barke cheikh du Fadilou Mbacké di siyaare nag koo xam ne sama nijaay la di sama soppe di sama waajur ma koy santu di ko topp muy alaaji njaay loo njaay doole ma ku mu dajal ku ma ko laaj yàlla nga siyaara ji yonent bi moo la yow nag sang bu tedd ba sëñ sëñ Omar nag am kàddu yoo xam ne na naa ko dugalaat tuuti sëñ Pascal ndax dafa kontaan ci moom lool sëñ Pascal nit ki ñett rek la boppam ak bisam ak i bokkam bu ko xeeb bu ko xeebal bisam bu ko xeebali bokkam te Ibra euh, te Omar Sall amul lu dul bis bi ba pare mouvement bi mu jiitee jàppale Macky Sall fata falaat ko 2017 mouvement boobu yow mi yaay parrain bi bis bii tamit mu tuddale ko nga jël saw ñàkk jox ko ànd ak sa soxna ànd ak délégation bu rëy bii sunu ndijaay Serigne Ndiaye loo Ndiaye sëñ njaay a nga nee toog moom it jóge wa Touba ñëw ci bis bi Omar nee na xolam sedd na moo tax sax mu ni ma jëlaatal ba Yamar pare nga gërëmaatal ma Pascal xam ni kontaan na ci moom. mbott nak dañu xorom daa diis ñun ko ko la ko wax mu ni ki keenoo ma joggi motax ku yëy yexi bu ko yëg ni yëy nga yëxi kat ku gis ni ni nena ngi bis bu ne borom lay nuru cyant gi bañ ko deree def ba tay musse xumbe ni musse mel ni kon yow min ko tuddee yow mi yaris di ñaanal sunu bay ñay lo ñay me di maître bu reuy tok ci télévision bi TFF di jangal nit ñi xam-xam di delo nit ñi ci demb di ko bëgg Serigne han bakki Farba Diouf buur siin ku mandoo fen ngan nga ma ko faraan gane at mu jot ben yoon damaa dem ca ngan nga gis toog ak benn commandant de brigade mun ma kenn du sëñ Abdoulaat man ko ah, hadi, mun ma at mi mujjee ñëw fi seet gane si Paa Farba Diouf buur siin dama day ñibbi ma di ko gunge ba mu génn Fatick mu ni gees ba mu ñëw ni bu soobee day nga ma taxaw ba sama xol sedd guy buñ ci tegee fan mi dine ku ma ëpp daraja foofu dana la teral nee ma foog ni ñaani baatin la ñi teg ci ay fan sama téléphone sonné ñun moo wil Abdou neena na ma ñew palé neen bi Abdou djouf ne teul dama tit mu jox ma loxo nuyu ma ni ma yaay commandant diw ma wa mu ma sama papa pa Abdou sëñ Abdoulaat dafa newon dafa ñewon kër Farba djouf buur siin ngan ñetti fan nga yoron sécurité am lan nga bëgg neena na ma téral mu mun ko lépp kookoy sëñ Abdoulaat kon seigne ndjay lo ndjay ñu ngi lay ñaanal sunu bay nga gudd fan te ki bëgg jox kaat nak moy Cheikh Ibrahima fay di islam rek di conférence bu reuy seigne murtala mbacke yar ko lu ne ci mom seigne murtala ko def ci mom diko rafet xam xam diko yaru diko ami teggin ne ci dekk bi di fi dox doxin rafet and ñaari soxnaam yi soxna nday babu ak borom ndar ñoo ngi ni tok ma and ak ñom di nit ku bax di nit ku am yermande di nit ku meuna dimbalé cheikh ibrahima fay gona yu bari di roy ci yow waye ni nga mëna mel nak ak nu mëna mën ni di ben du ndax bala nga xam ne for nga dakk ji nak bam dañum ñak kën du ko sekkal dugub bopp kenn du ko watal xañ der bu dëgër may ko roto du ko doon ci bayam gor gi bilal say ha baye mo njëkk corne sahar señ Bamba yaano mom 1946 bobu chemin de fer fanweeri murit fa ne tubaab bi defal autoray bi ni woru ngeen yóbbu ko tubaab man essayé ko sa baye moo yek tal ni ku yol señ tuba nek nañ señ fallo gayne Fatma ma teeru góor gi bilal say sa baye mo njëkk corne sahar señ Bamba yaani mom kon war nga taxaw ci bas ni señ Bamba neena cheikh ibrahima yàlla na yàlla guddal sa fan nii nga mën a mel ak nu mën a mel nii di benn damay jox rajo bi nag tax damay bañ la sàcc daloon sàcc ba dal ma sàcc ba daa ñëw ci kër ga Abdou Ndiaye di sàcc fekk lampe ëtt ba di tàkk mu bëgg fay lampe ëtt pour kër gi lëndëm mu jaawale contact lampe ëtt ba contact machine wal ba fekk waa kër gi bi ñuy tëdd ku ne yaa ngi fanaanoo yettu kel bi ko mun dama doon wal kon damay jox imaamu di wax ne Modou السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخديم xam naa rek ñuy santati yàlla ci tënk waxtaan wi du jeex waaye dañuy ubbi donte juróomi minute la ndax dafa mel ni dañoo am ay gan te ku am gan tëraani ginnaaw bu ñu waxee nag ci Omar Sall mii nga xamante ni yàlla dogal na juróom-ñeenti at ci ren maag ànd ak maa ngi ànd ak moom di ko defal wax naa léegi imam Mangane mi nga xamante ni mooy imaamu quartier bi yàlla dogal muy sunu mbokkum daara euh, te nuyu ko mooy nuyu mboolem kilifa diine yi fi nekk yépp ndax fa ñu yàlla boole sori na euh, ñu xam ni euh, sëriñ Babacar Pascal mii ak soxnam su baax sii mu ak alhaji njaay lo njaay mu bax mi ak serigne omar dem nga xamni sama bop ndax mag ñom mom du ñaar kenn la demb yag na sama gër lool ñi waxtan ci bisbi ak jagal serigne omar sall nak ak ay nijaayam serigne abdullah sall nga ni soxna binta ja di wajuru ndax man fu yalla nekkul rek jukna fi ñu bari xam nañ ma ci lool waaw te bisbi mako sos juroom ñentat du benn bis ku fi ñëw sama gan nga du gan a moo tax keroog bi ma sëriñ Babacar Pascal Ndion mu baax mi woowee ni ma bis boobu man la sama bisa waaw mu taxaw ci taxawaay bu rafet démb woo na ma woo ko waxtaan nañ lu yàgg ci téléphone ma ni ñu mel nii gis nga koo def lu baax nag ñu wax ko aayul waaw wa ma shahidna illa bi ma alimna sëriñ Abdoulaye Ndak mu Cheikh Xan dañu woon 78 le seigne abdoulaye wax lolu waaw yalla dogal muy suñu kilifa waaw di suñu nijaay it njaxata gi ndax seigne abdoulaye jaxata mag mo jur na jaxata mu ma kon seigne abdoulaye da bam jex tak ah, ah, wa mo kon 78 le seigne abdoulaye mbacke waxon ni dajale talibi yep ni len kep ko and ak man tay nango jamu yalla serigne babacar pascal ta nango liggey da nek ci jup تبانيتون كن تكلتون جيجلكو بولي لك يوم الخيام دنا على سيرة بيالا تيوي رسول الله تيوي سنبا متيو مسيرة لا 78 داني كوشي نيكو نك دنيا تيو نغا دنجي من داني وخني وما شهدنا إلا بما علمنا دو مسيرة لولا مخم من لما خم لا سيرة كون عمر سالاكي بوكم اك منك سمو ولري ndax beur nañu xam tane buñ ko diggé ci FM rek daanaka ñoom ñëpp ngi nit ñi weree to xam ni kat bis bi le 15 août la bis la ba ñuy waxtaane Cheikh Mouhamadul Fadil waaye jël ko nag dara jàll ko Babacar Pascal Ndione bañ ko ko dara jaalee tamit da cee taxaw taxawaay bu rafet ndax ba Omar jógee ci moom daa ñëw ci man bi ci guddi Omar yàgg na ci kër ga lool sama soxna yi ñooy seere sax ma ne ko kuy jàppale président de la république ñun ñu ay politiciens ay nitu diine lañu ay homme religieux lañu waaye yàlla dogal na Serigne Babacar di nekk ci réew mi di liggéey nekk ci dëkk bi te dëkk bi naqare nekk la Thiès gii Serigne Babacar Thiès dëkk bu naqare nekk la. li tax ma xam ne naqare nekk ci koor gi rek 56 ci yëpp wër naa leen def naa daanaka 67 jotaay ci kees ñi ma àndaloon dama pare tawat maa ngi doog a génn nii dama pare feebar tëdd sama kër. 67 juróom benn fukki jotaay ak juróom-ñaar def naa ko quartier bu ne dugg naa fa kon xam naa nekk ci dëkk bi dëkk bu naqaree nekk la waaye am nga fi way am nga woy ndax lan mooy wayoo mooy ku am yitte bu ñëwee ci mu faju am na yitte joo xam te ni ki fi nekkal Seexul Xadiim xam na xam naa yàlla xam na wala yàlla xam na ko waaw loo xamante ni ci yoon wi la jëm ba ma ko ko waxee ànd ak kilifa yu jóge Tuuba Daaru Muxti ci saasa la ni man maa koy saafara moo tax ma ne ko bu yàggul rek danañ ànd maag yow dem ci Cheikh Sidil Muxtaar ndax ay kayitam a ngi ci sa waaw kon yaakaar na moo tax lii dama ko dencoon dama ko dencoon ñu xam ne am nga ñaari kilifa bu njëkk ba mooy Serigne Babacar mi la tuddee te Cheikh Mouhamadul Mansour tuddee la ko ba ci des mooy Cheikh Mouhamadul Fadil te ngay lépp Serigne Abdoul Fatah ñu xam ko waaw. di di ngay déglu kii li ko da ngay déglu rek xaaral ko dégg séeréer xam naa ko. <laughs> nga xamante ni ginnaaw ndey ci seex nga nag da ngay riiw mii fu Tiwaawan wéyee Tuubaa wéy la ca dootul bari ndax fu Tiwaawan wéyee lu baax lépp wéy fu Sëñ Bamba wéy lu baax lépp wéy te ñooy mam bu kunta ñooy ñëpp Serigne Mansour jox la oto boo xam ne dañ la bu ko soppi ba tey yaa ngi oto ba nga fonk ko lool mu gën a la lépp te Serigne Mansour moo fi nekk loon Seydul Hadji Malick di doomi Serigne Babacar Dia tuddale baayam jox la oto ni kon ku sëriñ Mansour lii mu kenn mënul la dara kon lu baax lii nga nekk di ko def ci lislaam di ko def ci réew mi di ko jàppale si kilifa ndax lu am solo la El Hadj Ndiaye lu jubbalil loolu yéen waa TFM di ko jàppale si kilifa ma nekk ci dëkk bi di ko gis kilifa diine bu xewlee yaa ca man sëriñ daara bu xewlee yaa ca man bu réew mi xewlee nga jug taxaw kon ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ci barke borom guddi gii di Cheikh Mouhamadul Fadil foo nekk yàlla nga nekk fu kon lola ci sering Serigne Omar Sall ak suñu bop bopp danañu séré lola. waaw Serigne babakar Pascal limi dem ci mbolo yu bari yetta koy waral jëf da ko fay jitu ak teggin ñu am fa ak yek mu def ta yalla tax xam na ne diggam ak Serigne abdu Fatah moom Cheikh Amadou Fadal Mbacké këram gee nekk tey ca fa mu fekk baax liggéey ko ba boo fa demee sa xol seen du guy muy jaay jaay sëñ Abdou Fatah yendu na fa fanaan na fa ngan la te mi ngi bëgg a ñëw Babacar am lu mu bëgg ci réew mi am lu mu bëgg ci borom réew mi day jëf nag te du wax waaye ku yor soo làmmañ di wax moo kii jur di teg su bëggee yëpp ay nawleem nañu taxaw waaye bu caatloo fu mu taxaw ñu fekk ko fa mu bëgg lool président la république moom Babacar Pascal di ko jëfal ci kees giit te du ko boolee wax di ko wax lu baaxit te du ko boolee ki wax ñu di ko tudde lu ne mu di ko jëf te du ko boolee wax man nag nag soxnaam su baax yii di ma maakan ak soxnaam su baax see nekk ca ndakaaru ay soxnaam di sant yaayam it bu baax Babacar dara ñoru ko liggéey dimbali ku mu tane tànkam bu gàtt waxam bëriwul dama taana ko baax barki démb muy Mansour Faye bokk première dame ndey ak baay mu ne Njaay loo man ko Mbàkke mu ne ma président bëgg mooy ku koy jëfal te bañ ko wutili noonu ma ne ko Babacar ca loola la ne utilul kenn ay noonu Omar wax nga dëgg ku yàlla fal àndal ak moom boo bañee fanaan biti ku waaye di nga fegal sa morom jël Macky aaye Senghor fegal na Abdou Diouf fegal Abdoulaye Wade fegal Macky aaye ku bañ mu tibbal la di nga xaaraani te doo amum raxasu kirdan du la jege nan di nangu bi yàlla bu nu bëggee mucc te nag nan waxtaan nag te dëgg tax nag oustaz ku gën mag Macky Sall amul ku gën première dame amul mën naa dimbalee am na yërmande ku gën Mansour Faye amul waaye ku gën Pascal amul borom teraanga la ay diplôme am la yor nangu naa dimbali nit am na yan ami teggin barki dem ak yaayama yendu mu ne ma njaaye ma ko mbakke mu ne sama doom ji la ko waa yéen a jàmm waaye baaxam jàpp ci man la ko jëmee ak say waajuram mi ngi maa ngi kon soo jëlee bis bu day nii tuddee ko Pascal bis bu day nii Cheikh Ahmadou Fadal Mbacké ñaari xalifay Serigne Touba ma ne woon tuuti teema fanaane Tiwaawan doon ab tiijaan moo ko wax dañu mut mun mut jël kaan ba dindi bot ya fëkk sa koset wa ñetti yoon waaw tuuti tee rek ma fanaane Tiwaawan doon xalifa général di tiijaan wax na dëgg Amadou Fari Mata la ak Demba Fari Mata maam Maram Mbacké leen jur Amadou Fari Mata jur Mbati mbakki mu jur maam Ousmane mu jur maam Alaaji Malick maam Ousmane dem aafe ah, jël fa soxna Mati Ñang am doom bi góor yàlla wet di ñu jël Mati Ñang jox ko moom du bu sa càmm jël soxna Jaara bu sa maam soxna Awa bu sa aw bu sa màgg ñu wax ko maam Alaaji Maalik mu ne xëjul benn at jox leen ko Serigne Touba lu mu fa jur muy wéy li ñu jox ko Cheikh Amadou Bamba moom Cheikh Amadou Fadel Mbacké ñaari xalifa Serigne Touba